ko taalibe yëpp euh, ginnaaw bañ santee suñu borom subhaanahu wa di julli si Muhammad alayhi salaatu di sant Cheikhul Khadim ale akbar ridwan laay baal di wax jërëjëf Serigne Touba di wax jërëjëf Serigne Touba ba mu ñu mayee ñu bokk si ñu koy liggéeyal ndax dafa ne Touba li abdil muridin saadihin loxo bi xidmatin aw bi xubbin aw adiyaati ci loolee la Mass Thiam di directeur général wu Sonaget di UCG bayit boobee mu dégg si la tàbbal liggéeyam si mbir mi donc ñu indi fi mobilier urbain lu toll si ñaar téeméeri bac à ordure pour jàppale nit ñi ci catu màggal gi te incha allah duñu yem ci loolu suñu personnel bi yëpp dinañ fi nekk avant pendant ak après màggal gi yëpp pour nettoyer dëkk bi jàppale dëkk bi pour mu set loolee daal mooy ndigal gu ñu jox ah ñi sant Serigne Touba tamit ba mu ñu tànnee ñu chaque année ñu bokk si ñu koy liggéeyal di sant tamit waa daara xidmatul xadim mi nga xamee ne mu xadimata xidma mi nga xamee ne saa su ñu ñëwee dinañu yombal liggéey bi amul benn gàllankoor bu ñuy teg suñuy liggéey ñu ngi sant bu baax si turu Massam di leen sant bu baaxa a baax a baax di leen wax jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara di rafetlu jataay bi ak jéego yi ngeen def ñëw ci barab bu tedd bi ngir waajal bis bu mag bi ñu jëm muy bisub 18 safar euh, daayira Muxaddamatul Xidma nag ku nekk xam na ne mission moo doonoon seetal jumaay Tuuba kon bu amee kuréel gu ñëw jàppale ko ci cet googu day du def lu dul sant ci bu baax a baax tey du ñu ne guléet ndax mën nañ ne ñaar wala ñetti at ci ginnaaw taxawaay yu mel nii la ICG di di di def di taxawaay yu rafet yoo xam ne ñëpp ko ràññee jël naa màggal gi waaye taxawaayu ICG ci dëkk bu sell bi di Touba képp ku dë ku nekk ci dëkk bi rek euh, def nga ci remarque bu baax lu jiitu ICG di tabbi ci ci dëkk bi ak bi mu fi tabbee gis nañ coppiku gu rëy ci ay dispositifs yoo xam ne jël nañ ko ci dëkk bi ci wàllu luy ramasser ay euh, mbalit muy Euh, defukaayu mbalit yu mag yi nga xam ne daanaka mun nañ wax ne ay tonnes lay def nga xam ne dañ koy def ci quartier yi waaye bac a ordures yi nga xam ne ñooy nekk ci mbedd yi euh, wàññi na bu baax a baax euh, taqaayu dëkk bi waaye tam personnel bi nga xam ne ku gis suba bëccëg ngoon guddi romb leen ci dëkk bi ñuy setal dëkk bi loolu yaakaar naa ne euh, tawfeex la joo xam ne ñëpp ci teg seen bët waaye nag bu ñëwee ci barab bu tedd bii di euh, jumaay Touba fekk si fi daayira Muxaddamatul Xidma euh, taxaw ànd ak ñoom liggéey boobu danañ ci sant bu baax a baax kon waajtaay wi nga xam ne mooy waajtaayu màggal Touba ngeen ñëw fii ci dëkk bi indi fii jumtukaayu takk yooyu nga wax. ci wàllu bac à ordure wala sax mën naa wax ne lépp parce que du loolu rek mais ay pelle mécanique ay lépp ñun teg nañ ci suñu bët loolu ñun dinañ ci dina dina woyfal suñu liggéey wax dëgg yàlla woyfal na ko lool ndax dañ daan boole di saytu sécurité bi di saytu nit ñi fi ñëw. Euh, liggéey bi dana gën a woyof ci ñun. kon ñi ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm maa ngi fi ak Serigne euh, Fallou Mbacké mi nga xam ne moo jiite commission d'organisation ak euh, adjoint Serigne Makhtar kan waaye maa ngi fi ak Serigne Abdoulahad Bousso Thierno mi nga xam ne moo jiite commission culturelle ñu ngi leen di bëre suñu cant jëmale ko ci seen kilifa Serigne Mass Thiam taxawaayam rafet na lool taxawaayam rafet na lool. gis nañ euh, jéego yi mu def ci UCG rawatina ci dëkk bu sell bi di Touba dëkk bu ko ñor la gis nañ taxawaay yi mu ci def waaye nag di koy jottali nag suñ cantut ndawam yi nga xam ne ñoom la fi bàyyi muy coordonnateur yi nga xam ne ñoom la fi teg muy Serigne Moustapha Gueye ak ñim àndal euh, muy coordonnateur yi nga xam ne ñooy coordonné zone bii di euh, lëkkale Touba ak Diourbel ak Louga wax dëgg yàlla bégg nañ ci lool ci seen taxawaay ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm xanaa damay jox sëñ Abdou Lahad Bousso Thierno mi nga xam ne moo jiite commission culturelle mu yëkkati ay kàddu jëmale ko ci euh, kaddu cant lay doon rek ci turu sëriñ Afia mi nga xamante ni mooy njiitul daayira muxaddamatul xidma jëmale ko ci seen kilifa sëriñ Mass Thiam waaye particulièrement jëmale ko ci yéen ñi nga xam ne suñu borom defal na leen tawféex ba ngeen bokk ci lii bokk ci ak njàmbaar may bokk kon yéen ñi nga xam ne yéen la yàlla dogal ñu tànn leen andi leen ci liggéey bii ngeen ñëw si war ngeen sant bu baax a baax te xam ne am ngeen tawféex ju rëy asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh Euh, sëriñ bi ñu ngi lay nuyu bu baax. nga xam ne sëñ Ablaye yëkkati na ko matal doyoon na sëkk euh, ñu ngi leen di nuyu kon di leen ndokkeel ci liggéey bu rafet bi di leen nuyu ci turu sëriñ Afia ak euh, personnel u daayira Moukhaddamatoul ma yëpp. di leen nuyu ci turu sëriñ bi tamit Cheikh Mamadou taxaa ndax ñun liggéey bii ñuy def moo ñu fi teg ci ndigalam lañ fi nekke kon ni ko sëñ Ablaye waxee liggéey bu rafet bi nga xam ne yéen a ngi koy def ah ñi nga xam ne am nañuy bët tey xool moom gis nañ ko ci dëkk bi ci wet yëpp waaye ñu nag matt gi nga xam ne ñun fi lañ nekk di ci liggéeyal Serigne Touba dañuy jàpp ne ku ñëw fekk si ñu fi rek ñun ngay liggéey ñun ngay jàppale loolu nag doon gi ngeen doon ay taalibe ba noppi doon ñu yor liggéey boobu ba noppi xam loolu xam aajo goo xam ne aajo na ko surtout màggal fii ni muy bëree ci ci ci ci dëkk bi ni muy bëree lu lu ñuy war a ton ni ci wàllu mbalit muy kayit yeeg suuf seeg yu demee noonu daayira Muxaddamatul Xidma dafa am mbooloo mu bëri moo xam ne lii seen liggéey ci biir màggal gi mooy setal léegi nag boo dajalee mbalit mi ba noppi nag am foo ko def dafa am solo kon su ngeen ñëwee renforcer poubelle yu toll nii nga xam ne léegi ñii bale ñoom ànd ko ak yéen danañ am fuñ ko def loolu dafa doon luy am solo ci màggal gi di xalaat bu rafet tamit moo xam ne wax dëgg yàlla rafetlu nañ ko bu baax xanaa di leen ñaanal rek ñun ñëpp ñu bokk tab bi ci ñaanu kii borom barab bi muy wax fir liman banaw bina arrafi wax fir liman amarahum bihi jamii wali jamihi man ahanahum ala binaiha allazi bi fadlika tala te loolu ci ngeen di dugg yéen waa ICC ndax yéen a ngi bokk ci ñi nga xam ne dañuy ànd ci luy taaral barab bi ci wàllu set man ngeen a sànni wenn xeer jam ci picc yu bari yéen a ngi def seen wareef waaye yéen ngi am ngërëmul sëriñ bi tey dana barkeel seen liggéey loolu it yàlla na ko yàlla def te boolañu ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu